bis baa ngi ñëw yaakaaroo da na taxaw dëgg la ko am bu xeexee moom dootul xeexat Petit Lo bu xeexee moom dootul xeexat. Brise wala mënu ma ko la 14 reetul incha allah. droite gauche ay waa yow lii lan la lii daanu da daanu. waaw yal nañ lay te loolu amul lu ko amee dootul am wallaahi aziim. dinañ bëre combat bu neex. ay waay fii xel sa xol ah original neexal bu te am na gu. original 100 pour cent pur jus de fruits. Sénégal ka fay kan ngi yegg si naa fay say facture mu ci gën a gaaw. KAPA transfert local la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko. wax dëgg yàlla boobu ba léegi xam-xam moo fay génn. Mm-hmm. waaw li ñu wax ci làmb mooy loolu parce que làmb lu koy avancé loo. Mm-hmm. ñun moom la ñuy kii. moom ngeen bëgg. waaw moom lañ bëgg. Mm-hmm. parce que ñun ñu ngi ci biir làmb. dañoo bëgg a commencé fii dem ba ci kaw. dem ba ci kaw waaw kon tey jii li li nga wax sànq ci waxu ménagères loolu loolu tamit dama ci ñëw bu baax parce que ménagères yi tamit xam nga am na ci ñoo xam si jànguñu. te doyluwuñu. waaw dañuy bëgg a ŋarale fépp. lay dëgg la talatun bëri. Mm-hmm. man sama premier combat ba sama combat bii man maa ko wutal sama bopp. Mm-hmm. parce que promoteur yëpp samay xarit la. Mm-hmm. waaw yow mbër man Bébé Elton mën naa am toppatoo. mën naa toppatoo boppam waaye li ci fekk Bébé Elton fekk ci keneen. lay dëgg la kon xam nga gars yi nañuy jël àq yelleef di ko jox gars nit bu bàyyee ñëpp dénk la boppam. nga ko war a toppatoo bu baax. taxawu ko mm-hmm. am ngoor nag gore ci moom. Mm-hmm. bañ a ŋarale. Mm-hmm. mënoo yor bu Cheikh Niang yor bébé Elton yor Boucar ak dembale ak Paul. te ñooñu war a bëri seen biir. mënul ne waaw waaw mënul ne. kon xam nga nan xool naa seen ñu defee ko noonu. caatu yaraax nag man li ma koy conseil mooy len nañoo bëri. parce que kalaaf bi tokaar lañ ko defar. kenn bàyyiwu ko woon xel. waaw mu ñëw génn ji ak trois points parce que ñim daan ñëpp mooy loolu. Hmm. kenn yaaxaru woon da leen di daan. dëgg la kon tey jii xam nga na ñëw bëri mooy loolu. Hmm. waaw. yaakaar naa ne am na solo doyen loolu moo ñu permettre nag ñu dalal suñu invité bi. di Cheikh Niang vraiment jóge ba Thiès ñëw teew ci li nga xamante ne moom moo di émission matinale de sport bi nekk champion. vraiment nekk ndaanaan dafa ay preuve am li wax rek bokk na tey ci mbëri ëpp kaw tey ci arène bi waaye xëy na lim bëree ci àll bi mu ëpp tey lim bëri biir Dakar. Cheikh hmm. wala doyen ma bàyyi la rek nga dalal seen waaw <laughs> waaw xam naa yaa ma a xam <laughs> Cheikh Niang ñu ngi lay dalal ci Lutte TV ci émission euh, matinale des sports mhm. nga ñu bëri fekkewuñu ko mhm. sa diggante ak Modou loo mhm. dafa naa Taïba Ndiaye la woon Taïba nan la combat bi demee woon kan moo ko tëgg ak mood loo boobu nga bëreel tey mu nekk roi des arènes looy wax ci moom waaw di sant yàlla rek boogar kii Dembélé ak Bogar ci invitation bi ñu ma invité li TV. di wax ne yàgg naa ko bëgg parce que bés nit ku baax la sama xarit la. wax dëgg yàlla fekk na ma fi Caroline Faye fële ca Mbour. Mm-hmm. defal ma teraanga joo xam ne dafa taxaw ne ma bu ko kenn yëg ma ne ko dama koy wax. parce que mm-hmm. man ku ma defal lu baax ma wax ko. Mm-hmm. parce que nit ñi. yàlla suñu borom mi ñu sàkk sax mm. dafa bëgg bu la defaree nga sant ko mu doole la kon Beuz maa ngi koy gërëm di ko ñaanal ci teraanga ju rëy jooju ma defal di ko seede ci mbokk li TV yëpp mm-hmm. ak Sénégal yëpp ak àdduna bépp di wax ne mm-hmm. nit ku baax la mm-hmm. di wax ne sawar naa ci li TV gi nga xam ne moom moo fi nekk ak gars yi di liggéey di bay waaram ci làmb su mu ci invité dama ci am contentement waa Modou Lo maa ngi koy ñaanal jàmm di ko ziar di wax ne àdduna moom noonu la rek nit ki li ko yàlla defal bu ko ko iñaane day gën a rey day rey doomu aadama. Hmm. Hmm. te moodu grand champion la. yàlla dogal na ñu bëre. Hmm. ñun ñii doon ay champion. parce que mais ku nekk ak fi yàlla di tollal say mbir. yàlla fu mu la tollal sante ko ko. te xam ne jaam bi boppam yàlla moom mooy may ñëpp. Mm-hmm. ku am rek xamal na suñ borom moo la may. Mm-hmm. fi ñu toll nii ñaanoon nañ yàlla fi ñoom Modou Lo nekk ci làmb ñu nekk foofu. Mm-hmm. mais du suñu yaafus du suñu ragal du suñu ñàkk fayda du dara. mbiri suñu borom la. dañ koy sant yàlla nag bu wér parce que am na ñun ko doon defandool gisatuñ leen. tey ñii feebar nañu. ñi génn nañ àdduna. tey bu la fi yàlla bàyyee ba nga nekk fi ba léegi dara jotu la. nga nekkaat ci di ci nekk di ci góor góor di ci am li ciy sa wërsëg. kon dañ ciy sant yàlla bu baax a baax moo du bëri nan maa moom. moo di bi mu dóoree les deux mu daanu dóor laay bee mu daanu ci leen bëri maag moom Taïba Ndiaye moo di lu ñu boole du luñ dëkkante ndax man boobu xaw ma sax moom mm-hmm. boobu maa ngi ci côté Diourbel yi dugg ci àll bi di bëri mm-hmm. parce que sama làmb tey lu baree baree bëri bu sooxee mm-hmm. sooxeewul sax maa ngi sant yàlla comme li ma wax nit ku nekk rek santal parce que fi la suñu borom teg rek moom nga mën a nekk parce que boobu maa ngi dugg ci biir àll bi di bajek champion yu bëri bëri naag ñoom ci biir àll bi ku ci mel ne ay Papa ñii ñëpp bëri nañ ci biir àll bi Papa bi combat bu mitee mitee miti mm. ba mujj gi dañoo arrêté combat bi ndax gaañ yu ma ko gaañ. Mm. ñu bëre Kayar ñoom Ousa Sow ñii ñoo koy dewoon ay magam ak yooyu. ñu bëri yëpp bëri ngeen bapat. arène bu bapat bëri. bëri dóor grand combat Kayar. Kayar waaw. ma xeex moom xeex bu miti. boo xam ne dañoo mujj arrêté combat bi parce que dafa gaañu. arrêt médical. ñu arrêté ko parce que papa dafa gaañu mhm. mu doon jàmbaar moom it doon ndaanaan mhm. yàgg dugg ci ci àll bi parce que ñu ci bëri dañ doon daje ci àll bi même saa kajoor bii mhm. bëri bu métti lañ ci àll bi match nil maa ngi moom bëri bu méttee métti saa kajoor dañ caa ah, jóge moo la daan wala yaa non waaw may ko rek mu ngi développé moom moom moom xam nga nag xam nga su ngeen bëggee fa <laughs> mu yëgee rek man comme li ma wax yéen ñaar dinañ waaw xam daan wala yaa yow fi ne yow fi mu ne yow taalibe Modou Lo nga. fi mu ne loo neexale Modou Lo ngay wër. moom nga man daal ma mën loo nga. man man dëgg yàlla dëgg yàlla dëgg yàlla dëgg yàlla dëgg yàlla dëgg yàlla non non non. moom dina lu neexal mën loo rek lay wër. déglu ma rek non non man waaw boo ma tàggee du tax. tamit may wax naka suñu noonu da ngay dégg man man yow laajoo ma question. wala moom xam nga xam man. fii laajuma question. dof bu mel nii man yéen tax man du ma. parce que moom moo rek moom. waaw léegi mais mais mais rek. ba gaañ waaw waaw waaw mooy mën loo daf maa daan mais excès gu ma foofu. parce que man fi ma fi ma rek man foofu laa jëm. waaw xam nga man foofu laa jëm. Bébé Elton. man yow boo ma yàkkamtee maa la gën a yàkkamte fi xam nga dama ne moom dof du ma bëreeg moom. Ah. parce que ku yabaate di wër di saaga nit ay ndey ah. dégg li ma la ah. noo wëroo parce que xamala tax xama leen nga taxaw fii ne làmb dañ koo war a defar rafetal ko mais yow da taxaw di manque de respect doomu aadama yi man doo déglu ma rek mën naa laa woon ay vidéo yoo taxaw di ma saaga ndey dinaa dóor ndey seex ñang ba mu dee ma suul ndeyam xam nga loolu agréé wante la te yow non déglu ma rek non déglu ma rek a xew yow war nañoo mën a bëri di que man doon naa koo xam ne hmm. man maay boo xam ne laa ku ma dawul dawuma la a baax hmm. man moo tax am nga non non jox cër parce man toog naa sax man toog naa waa Bantamba kii Bantamba TV. tàllal ko micro maa ngi seetaan directement ak sama njaboot. sama jabar ak samay doom. nga taxaw ne nan ma jox seex ñang ma rey ndeyam. gas ko waxuma lool bari nan ma ko jox ma dóor ko nan ko génne. ak suñu ko waxee Bantamba. waaw waaw waaw léegi léegi léegi léegi léegi léegi léegi léegi léegi ma ne leen. amul problème. léegi foofu da laa métti maa ngi jégal. waaw non man aw ma yooyu problème. waaw man jéem a paal la jéem a jéem a jéem a yow magu ma la. yow ab paal la magu ma la. ndax kii yooyu yëpp magu ma la. yow ban ma jub 2012. yow man yow da ngay jàpp weex tàll bi nga xoolal sa jub yow am mag suuf. yow déggoo am na problème. yow déggoo voilà waxal loolu sama frère la. waaw man waaw. man ma. waaye doo ma bàyyi. non teel a ba kii la ay 2007 la judd man. non 2017 2017. waaw dama ne maanaam kii xamal la moo ma taamu. waaw lu tax a bëreeg moom. ma bëgg a wane ci làmb. waaw ci Cheikh a rey ci làmb. Cheikh Niang nga wan bëree ma rey ko ci suul ko ci peelam yoon. peelam bi alxuraan peel bu ndaw beeg bu mag bi yow bu ndaw bi sax laa li tax may koy woon barki alxuraan du ma bëri Bébé Elton. moom la ci moom mii la dese. Baye Ndiaye bi nu mu dese ci man. waaw wax ñooñu am lu ma leen tudde ñooñu am lu waxoon ñooñu man la ñuy déglu Sowetaas ndax aw ma woon adversaire Tapha Gueye dee jox mu bàyyi ma fi buuse ne du bëreeg man. man ñooñu gars yi fu ma wax nga ne naa nga ma naa. léegi doo ci jël mu ñu du ma jël bébël doon daf may rek. non du waxul daf may rek. parce que yow am na ko ko teewoo. yow daf gars yi tamit la daf dama bëgg a da nga naan léegi léegi léegi bébël doon. waaw man dama bëggoon ñu mujjee seen ñaar. waaw ñu dalal Cheikh ñaar. wala ñu waxtaan ak moom après nag ñu mujjee seen ñaar. waaw dimbali waaw dimbali dina ko tontu. man xam nga diwo diwo Modou Lo ma daan du gàcce. waaw man Modou Lo ma daan du gàcce. parce que Modou Lo daan na daan na ñoo xam ne mhm. tey jii Modou Seex Ñaŋ Modou leen mhm. te Modou Lo fa mu bëri jéeg moom góor ñema foo na def mhm. parce mhm. dafa ñëw combat bi des une semaine ñuy wut kun yóbbu tay ba Njaay seen koñ pour bëreeg moom dëkkam bi mu dëkk di def drapeau alelo papa la ci moom maa ngi nuyu waa tay ba Njaay gëpp au parce que Modou Lo ak man soriante woon diggante Fandène ak Thiès ak euh, tay ba Njaay benn ñun ñoo bokk lépp damay daw yi su may entraîné ji damay jógee Thiès daw ba biir Fandène dëkk ñoom Modou Lo jaar ci biir d'accord kon xam naa ñoon bu baax a baax a ñu toog làmb ji des une semaine ñuy wër adversaire bu mu bëree Modou Lo amuñu woo. Mhm. bi ñëwee ci man expliqué ma. ne dem leen ci doomu Boy Niang ji nekk Thiès kooku su ngeen demee mu jël combat bi loolu moo mu bëre boole ak Modou Lo ñu bëre ma ak mhm. ba may bëre ji taxi laa yóbbu. Mhm. ñoo fekk ko public am ñu bëre bëre bu métti ma ak Modou Lo. amul benn ñàkk jom bu fa am mhm. ñu bëre ba yàlla dogal mu am ndam ci sama kaw mhm. ma ñaanal ko ndam di ji te jig na ko ndax mi ngi nii doon roi des arènes mhm. kon roi des arènes na ma daan du gàcce bëri naa roi des arènes du gàcce nit ku nekk suñu borom mooy ut ay mayam di ko def nu ko neex mais may gi ma yàlla may man sant naa ci yàlla xëy na amuma ay million ci laaw ndax wërsëg la mais ñëpp xam voilà mais ñëpp xam nan ma te reyante naag jàmbaar yi fi jaar yëpp bis ba ñëw yaakaarul da ko doon suulee na taxaw dëgg lu ko am bu xeexee moom dootul xeexat Petit Lo bu xeexee moom dootul xeexat. Brise de Mer maa ko mën wala mënu ma ko la 14 sereetul incha allah. droite gauche ay waa yow lii lan la lii bi xeex cal cal yooyu. na xeexam nag ma xool dëgg lu amul lu koy ma dootul am wallaahi asim dinañ bëre combat bu nekk ay waay féexal sab xol ah original neexal bu te am na original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw KPR transfert local la ñun moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko.